syahr jin Bismillahirrahmanirrahim Balayu Dan luar Dunia para Tiri bonyu tebal kau tala Fatili sunyu bopu te fatili len Insya'Allah njëriñal alquran moo di xam xam bi njëriñ moo di jëfoo jëfoo bi li muy jural moo di mucc kon yal yàlla jàppale ñu bi ñu mën jàng ko buñ ko jàngee tënku ci monsieur Konko borom bi tabaaraka wa taala nangu li doy waar moo di fii ngeen di commencé mu di suratu Furqaan boo demee ca kanam ca ay ñaar fukk ak ñett yàlla nga cay wax ne waxtaan bi وقدمنا إلى عمل فجعلناه هباء منثورا jamono bi ñu toll seetlu nañu li gën am solo mooy xam si diine ñàkk a xam diina li mu dugal ci nit ñi man maa ngi gis ne yi ñuy jëfandikoo nii gën a yaatal suñu xamante ci suñu biir ñu xam nit ñi seen niveau fi mu ci wàllu xam ak wàllu tënku ci diine booy déglu yi nga xam ne moo di jumtukaayu jamono da fekk bokk ni ci jikko doomu aadama yi moo tamit waaye nag yellantoo woon na ñu tabee ca la ñu ne waaye tabi ci la tabee ci loo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko mool boppam soo dañuy xëy benn bis indil la benn photo wala benn carte lii de bu fekkee jàllale nga ko ci fukki nit ñu indil la image ci ñeent yoo xam ne yàlla ni ñu ko yonent bi waxee yàlla moo ko rëddaloon boppam ne ñi kenn bokkut ci imaamu Buxaari ak Muslim ñu ngi génnee ci hadisu Abdoulaye ibn Mas'ud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne inna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi arbaina yawma mu ne doomu aadama bi bu amee nekk benn lumbu ci biiru yaayam bu amee ñeent fukki fan lu aaju ci war sagam ci fanam góor lay doon wala jigéen kuy texe ak ku texe loola yàlla ne pare na ci bis boobu ñeenti yooyu tey su ngeen di déglu yooyu ñu defe ko yàlla gën ko ni ñi moo ko moon boppam soppeeku di ci doomu adama yi moom la ñu may amul lu gën a yomb boo demee ci àll ba sax suuf mën a toog waaye àjjana saraxe ko ko ma ko may maye boo defee nangam du ko àjjana boo defee nangam maa ngi déglu tey balaa muy ñëw benn photo bu mu tasaare ne ki ko tasaare ba ko tasaare su ko dégg balaa bas di xew aajo faj te yàlla waxoon ne whatsapp bi pare woon na ci tey àddina ñu jël nag mu nekk pàcc yoo xam ne dañ koy may tabe ci loolu ndax borom bi tabaaraka wa taala mu la ko bu ñu demee ci suratu araf daañu fekk ne wars moom mu ko def fanweer ak juróom-ñeent ay sim def ko def ko ñeent fukk inna lasina kasabu bi ayatina واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سلقها وكذلك نجس المجرمين yàlla nee na ñu mel nii la yàlla wax moom nee na su fekkee mënul laa jël giléem nga dugal ko ci bën bënu puus kon ñi mën a lire bu àjj ñu di leen jël nag bu ñu kay su ko mëgo waaye ñoo moo di tabe bu ci kër yi moo di tabe doon yàlla àjjan na ñu mayeen nañ ko ba xam sax ndax des na des ni mayeen nañu àjjan na ñu mayeen nañu war sa gëm yi mayeen rahim yàlla ne tabaaraka lasi nasala alfurqana ala abdi yàlla ci dayoom ak màggaayam moo wàccee alquran moo wàccee ko ci jaamam bu ñu yonent bi sala ba ana lan mooy li yakuna lil alamina nasiira ngiru lan xam nga dafa am loo xam ne suñ la ko waxoon am nga ko xam et ni ñu yonent yàlla dafa doon waxtaan ak malakal mawt mu ne nag naa ñi ngay waaye bëgguma nga bett lii rek nga doomu fi bàyyi parce que ki yóbbu woon aadama ak ñi ca topp kon doomu fi bàyyi waaye li ma bëggoon moo di saa soo xamee ne bëgg nga maa yóbbu dama bëggoon nga yëgal ma ma bàyyi benn bis ma la ko mën a taxaw na ko tegee mu ne ko maa ngi yow dee waxante te danga ma joxoon kàddu ne nangam nga ma ko moo di balaa ngay ñëw dem may yëgal ne yaa ngi mu ne ko ndaw li yëgoon na yàqu yow mu ne ko yónnee naa la nga xëy ndigg li bañ yegg si na wala yegg si woon fekk ni ndaw la waaye ndax ñu nga ndax ndaw lu yegsi wala nam nga ko ne ndaw si yegsi kon lil alamina si yàlla tabaraka wa taala andil nag xam nga borom xel kooku la ñuy sidd ëllëg waaye ki amul xel tey la moom allazi lahu mulku samawati wal ard kooku moo di kan moo di ki wàcce alxuraan moo di ki nga xam ne moom moom asamaan yi ak suuf walam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun mulk amul doom jëlu ko amul itam ku muy bokkaale ak nguuram wa xalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdiira buur bind na na ko bindee soo ca fekkee lu la jagul demal nga seetal sa bopp ci yow la wàññi lépp ko war a teg ak waxtu ba ak nan la tege na ko bu mu mos a. wattaqu min dunihi ayatan waaye ñu bañ loola daal di dem jëm nag ku dul yàlla def ko yàlla di ko jox. laa yaxluquuna shay'an wa hum yuxlaquun te ñooñu ñu di jaamu ñooña dañu leen sàkk ñoo mën a ñoo sàkk kenn wala yamlikuuna li anfusihim daran wala nafan mën ñoo aar seen bopp lu leen di jëriñ wala lu leen di lor wala yamlikuuna mawtan wala xayaatan wala nusuran amal luñ seen bopp mën a luñ seen bopp si ngan wala dee wala dund wala def yomal xiyam kon bu fekkee ne ñett ñi yow yàlla ñu mi wàccee furxaan nga wàccee ñu ñu ngi lay ñaan fa muy sottee lebal ko dëkk ñun moo tax wala xayaatam dund bi ñu nekk yàlla buñ ko jeexalee ci lu bëgg wala nu suuran bis ba ñuy dëkk suñu dëkkee yàlla fekk lu ëpp lu ñu liggéey suñu bopp bu di sa yërmande ak lan ñii samay gàmbi lu dugg nañ àjjana yàlla yàlla mooy kon incha allah def si yaay wërmëni euh, njàng jamono bi ñu toll doomu aadama yi dañ ko bëggatul wala dañ ko xam waaye lil aalamiina nasiiran bu ñu ci jogoon man su ma ko doon jàngale dama doon bëgg ngeen cotisé ma lu toll ci ñaar téeméeri litre essence jox ma oto bu am climatiseur ñu am ñu dem ba Kaolack su fekkee xamul ko ñu laajte fii ku ko moomoon suñ fa bayee kon dem Sokone jaaga fii ku ko moomoon buñ fa bayee kon dem Baara laaj fii ku ko moomoon ñu seet ñi nga xam ne ñu amoon nekk doon xam-xam ak jàmm yàlla tey am am boobu la fay a sàkk mu amal ko njëriñ ëttu àllaxira moo di diinaam te diinaam bi sotti ci xam il faut ko xam-xam ñu góorgóorlu ci yaram si xel yal na yàlla boo ko defal incha allahu aju feebar yëpp yal na yàlla may lu wér aju feebar yëpp yal na yàlla may lu wér aju feebar yëpp yal na yàlla nekk seen i boppam yàlla nekk seen i garab wéy ndaw lu ñu dem àllaxira yal na yàlla jéggal leen ñi fi nekk yal na yàlla suturaal leen yàlla gëm gëmbalal leen jaamu yàlla ak xam yàlla ak am yàlla ñu jaay si réew mi la ñu wa sallallahu alayhi wa sallam ما شاء الله